sunu jafe-jafe dafa dafa jéggi dayo dafa jéggi dayo jafe-jafe bi bu fekkenté né yow da nga dem ba ndox nangu sa kër kër gi nek sunu ginnaaw nga xam moy kër sunu sunu euh, dekkondo bi sunu xarit sunu doomu ndey Alioune job ah ak euh, Amadou Dia ñom ñëpp ah cité bi yëpp seen kër yi ci ndox la nek pour nga dem sa kër il faut que nga def 20 mètres ci bir ndox ndox mi day ñëw ba ci ci sa nak mais eh, dimbalé leen ñu ngir yàlla ngeen génne eh, ndox mi fii loolu mooy jafe-jafe bi xale yi mënuñu génn xale yi am na sax ñoo xam dëkkandoo xam dañoo jël seen i doom yóbbu leen feneen ndax ndox mi pour euh, par mesure de sécurité mais loolu jafe-jafe la il faut que ñu dimbale nit ñi ñu génn ci situation bi. puis ren la commencé ren la commencé te jafe-jafe le euh, euh, problème bi yëpp dafa am benn waay bu nekk bu sëkk fii benn place boo xam ne ndox mi fa la doon dem.

dañ ci am wàll du sax lu ñuy laaj mais droit la dañoo war a dañ fa war a ñëw plan Orsec bi pour Sénégal yëpp la fépp foo am inondation dañ fa war a ñëw pour jàppale nit ñi loolu mooy problème bi ñun loolu mooy suñu jafe-jafe ah te jaaduwul sax ñun ñu leen di woo ba pare du ñëw ñëw nañ fii ba pare daal di dem di ñu xaarloo ah teg nañ fii ay ay câble euh, sur deux teg nañ fa ay câble ah dem naa ba foofu gis ko eh, fii wax nañu dañuy ñëw mais ñëwuñu. Hein? ah fo xamné sax dañ fa euh, euh, prépositionné ben ben ben moto pompe mais euh, ba légui dara amul nit ñaa ci bir ndox mi lañu dimbali ñu genn ci ndox mi loolu moy solution bi. dañuy dund lo xamné ni dafa metti trop ndax dañu nekk ci ay ndox

donc chaque jour niveau ndox bi day gën a yokk mënuñu dem boutique mënuñu dem jëndi lu ñuy lekk mënuñu dem fenn dañuy toog ci biir kër yi rek di xaar yàlla ak di xaar ginnaaw yàlla autorité yi dimbali ñu. am na ay jaan am na ay jaan moom ampagaay moo tax kenn ñemewul génn am na ay jaan vraiment. tout le temps dañ daan vidéo sax jaan yi di ko dugal nit ñi di ko gis ñuy wax ne faites attention bu leen jaar fii nangam nangam. même pour nga kii pour xale yi dem jàngi ñu war a def examen ñu ci bëri soit dañuy raté premier jour bi wala ñu affecté leen yóbbu leen euh, ñu transféré leen yóbbu leen beneen koñ pour ñu mën a dem jigéen ñaa ngi nii di ma dégg kenn dematu ci marché dañuy consommer juste ce qu'il dans les maisons li ne ci kër yi la ñuy consommer donc bu jeexee ku nekk da ngay débrouiller xool leneen lu fi nekk nga def loolu dañuy ñaan yàlla te nañu ñëpp ñaanle feebar bañ am parce que ak situation bu feebar amee évacuation war a am fan la ñuy jaar ba génne nit ki loolu yëpp tamit ay problème la yoo xam ne ñu ngi koy dund stress bi vraiment ñu ngi koy dund te ñu yaakaar ne buñ ne plan Orsec dafa war a nekk plan d'urgence comme ni ko dirigeant bi waxee léegi ñun waruñu sax dem ci ñoom ñoom ñoo war a def diagnostic di xool koñ yi ban moo war a am problème ñu dem intervenir te intervention boobu je pense que vraiment plan d'urgence warul dépasser un délai de deux jours dispositif bi ça doit être mis en place de telle sorte que ku def appel wala nga def même appel téléphonique que sax parce que urgence dañ un numéro sapeur pompier appeler tel numéro donc normalement waruñu sax une correspondance même si woté rek dañ wara intervenir